salaamaaleykum maa ngi leen nuyu. maa lay fay tur bi nan la. man Mohamed tey ñuy askanu Sénégal mooy les jeunes Sénégal ñuy xeex loo xam ne mooy homosexualité di góor jigéen. tey en tant que jeune noo gisee loolu. ah xanaa naqaru ko rek. waaw moo ma tax a jóg 6 heures du matin ma julli fajar rek ñëw fii dama julli fajar rek ñëw fii xam nga loolu na naqaru ko rek bugguñu ko. jeunesse bi ñoo ko war a xeex ñun ay ay taalibe lañ waaw ay julli lañ. institution de pratique aux antipodes de nos constitutions. Alaaji Maalik jàngalu ko sëñ Tuubaa ko Maam Baay Ñas jàngaluñu ko nangu ñun ñoo xam ne baaxul xam nga ñun lañ soxla gars yi soxlawuñu mag yi de ah lañ soxla jeunesse yi lañ soxla ñun ñoo ko war a xeex Macky Sall ñun ñu war koo moom nañu bàyyi nañu na mu bàyyi lu muy li muy fekk réew mi baaxul mooy jigéen bugguñu ko fi tey ko fi suba jeunesse bi bugguñu koo ko laaj day bugg gars yi soxlawuñu mag yi jeunesse yi lañ soxla ñun waaw ñun lañ soxla ñun ñoom ñoo ko war a xeex buñ ko xeexal man tey bu ma deewoon fii sa baax barke yàlla aw ma dara de wante bu ma deewoon tey sama xol suñu wax dëgg suñu waxee duñ ma jooy xamal ne xare laa dee. si xare laa dee ma deewoon fii tey ba kontaan wallaay dina duñ jooy duñ jooy wallaay la ñun ñoo ko war a xeex ñoo ko war a ñu ngi koy naqaru nag bu baax wallahi la ñu ngi koy naqaru bu baax a baax وليس بواحدا هو بلا شك تجن على الآخر idée bi ma ci am mooy jikko bi nga xamante ne jikko bu rafetul la te suñu borom bëgg ko ndax yàlla alakee na ci réew waa loot yàlla alak na ci réew ndax jikko bu bon la du du duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ñaanuñu yàlla nag mu dañuy ñaan yàlla mu jóge ci réew mi ndax suñu ay doom jikko boobu ndax jikko la moo tax ñu ñëpp jóg di ci di ko ñaawlu daal ñaar yëpp a yem ndax yàlla dafa sàkk góor sàkk jigéen ñaari peer yooyu la boole waaye sàkkul pour jigéen ak jigéen di ànd sàkkul góor ak góor di ànd du dëgg père góor ak jigéen la la sàkk mais sàkkul góor jigéen ak jigéen di def ak góor ak góor di def ñaar yëpp a yem benn baaxu ci dañ koy ñaaw nag ko bu ñu neexul la nag dañuy ñaan yàlla mu jóge fi bi maa ngi lay nuyu waaw waaleykum salaam ñu ngi lay fay bu ñëw fi nga xamante ne tey place de l'Obélisque gis jeunesse Sénégal ak kilifay Sénégal ak ñëpp ñoo xamante ne tey ay boromu kàddu lañu ñu jug di xeex li nga xam ne mooy mbirumu góor jigéen mbirumu homosexualité tey mun naa ne Sénégal nekk si réew mi nga xamante ne moom moo ko yéex sax di ko xeex te ban yëg-yëg nga ci am. waa xanaa am mbëgte bu baax a baax ndax li ñu gis day wane ni suñu ndaw réew euh, wàllu sàmm jikko ak valeur yi nga xam ne mag ñi liggéeyoon nañ ko fi euh, diine lislaam bi ko ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax yëg nañ ci it ni lépp loo xamante ne dafa nar a dugg ci réew bi ngir yàq suñu pas-pas yàq suñu gëm-gëm yàq suñuy melokaan ak suñu jikko suñuy ndaw réew tey dinañ taxaw ngir xeex loolu te loolu li ñuy wax góor jigéen lu ko ci gën a bon lu ko ci gën a yées gisuñu ko moo tax tey ñu daje fi ngir feeñal suñu naqarlu ci euh, projet loi bi nga xamante ni ñu ngi koy euh, yëg ni ñu ngi ko fiy bëgg a voté di sàkku tamit ci euh, nguur gi ñu criminaliser li nga xamante ne moom mooy wàllu ngóor jigéen ci Sénégal ba kenn dootu am fitu di ko fa wane ki kay doon nag ku bon bonu boppam ba di ko doon su boobaa nga doon ko mu yem ci sa biiru kër waaye doo am sañ-sañu fësal ko ba ki nga xam ne xamu ko woon di ko gis ba muy nekk ci xelam loolu daal moom mooy li nga xam ne moom dafa daje. ñëw ci li nga xamante ne mooy mbirumu lesbienne mooy jigéen koo xamante ne moromu jigéenam lay waaw loolu it dafa bokk ci yi nga xamante ni euh, moom ngóor jigéen a yem rek euh, lu bon la loo xamante ne te seetlu nañu mi ngi tàmbalee bari ndax sànq biñ ñëwee rek euh, am na ci ku ñuy waxtaanal benn journaliste. wax ni moom mu ngi jot ay appel ci ay lesbiennes yoo xam ne ñu ngi koy woo di ko menacer loolu nag liñ ci déggee ñun mooy mel na ni ñoom bu ñu amee sañ-sañu def loolu dafa am ñu nekk seen ginnaaw dooleel leen ñu nekk seen ginnaaw dooleel leen nag. ñoom la ñuy joxoñ baaraam xamal leen ne li ñu bëgg ci réew mi dafa mën a jàll ndax réew mi dafa am ay ay principe boppam dafa am ay valeur yoo nga xamante ne moom moo fi nekk te ñun dañoo taxaw fas yéene koo sàmm ba keroog fi jóge loolu daal ñu ngi koy xamal nguur gi di ko xamal ñi nga xamante ni euh, moo xam ay ONG la wala lu mu mën a doon ñi nga xam ne dañ fay nekk ngir jàppale loolu xam ne ñoom nañ teg loolu ci suuf xam ne du fi mës a jàll hmm. jërëjëf sant nañ baax fàttali ñu tur bi Xaadim Kase salaamaaleykum maa ngi leen nuyu. maaleykum salaam wa rahmatulah. ak tur bi nan la. Daouda Fall. Daouda Fall tey réew mi Sénégal ñuy xeex li nga xam ne mooy mbirum homosexualité mbirum góor jigéen tey en tant que jeune tey ban gis-gis nga ci am ak ban yëg-yëg nga ci am. waaw di sant yàlla jël si Seydina Mohamed rek di am yëg-yëg bu am bànneex ndax li fi mbooloo mi daje di am naqar nag si li ñu daje fi ndax buñ sañoon duñ fi daje ndax liñ bëgg a wate nga xam naqar nañ ñun ñëpp. mu jaral ñu nag lépp jaral ñu suñ bakkan jaral ñu suñu lépp ñoo ngi jógee ba Thiès nag fu lépp luñ si mën a taxaw xeex si rek nañ si a taxaw xeex ngir góor jigéen bañ a am lu bon la lu ñaaw la mot li bon la daal li koy waxee ñoo koy naqar lu baax daal moom di si taxaw mu jaral ñu suñu bakkan jaral ñu lépp mu bañ a am lépp lu ñu jaral daal moom dinañu ko jaral moom pour mu bañ a am su nañ dinañ jaral xeex dinañ jaral suñu bakkan dinañ jaral lépp waaw métti nañu lool asalaamaaleykum cheikh bi maa ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. tur bi man maa ngi tudd Mbaye Diop. Mbaye Diop ah, tey ñu gis réew mi Sénégal ñuy di xeex li nga xam ne mooy homosexualité di xeex mbir mu góor jigéen tey en tant que yéen nga xam ne ay kilifa ngeen ah, ban gis-gis ngeen ci am ak ban yëg ngeen ci am. waaw alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman kasiira ah, gis-gis bi ñu am ci loolu mooy di ko di rafetlu ñaawli guñ koy ñaawlu nii ndax mbir la moo xam ne nii ca ba islaam sosoo ba léegi ba ci diine ji nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa indi góor jigéen dafa mës a nekk lu bon yàlla yónni na ab yonent ngir xeex ko kese kese mu yonent yàlla luut ah. gis na fa borom bi mujj ak ay nitam ndax mbonte ko nga xam ne ñu ko doon def kon bu ñu gisee ne dafa mel ni luy bëgg a law suñum réew su ñuy kilifa fas yéene woote ko ak di ko yoonal ci réew mi daf ñoo war a jaral suñuy bakkan ndax comme mbugal Ah, suñu mbugal waruñoo seetaan nit ñi def loo xam ne yàlla dañuy wàccee mbugal kon nañ ko xeex luñ ci jëlee ñu xam ne loolu lañ ca mën a jëlee kon ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax lool moo tax ñu teew ñu toog ci naaj wi nii Euh, buñ fi waroon a yendu fanaan fi incha dañ ko def. salaamaaleykum maa ngi lay nuyu. waaleykum salaam. ngeen gis réew mi ñu xëy di xeex li nga xamante ne mooy mbir mu góor jigéen homosexualité mu nekk loo xamante ne lu ñaaw la ci réew lu bon lu baaxut en tant que yow Sénégal en tant mag kilifa tey ban yëg-yëg nga ci am. danañ ñëw léegi ci délégation yi jaajëfal ak kilifa diine yi nga nañ Sénégal yëpp mu ñëw wax ki wax ne mbir mi ñëpp naqari nañu en tant que musulman euh, ñun euh, xëy na lu baax ak wax lu baax mooy suñu liggéey balaa ñoo ñëw ci délégation kon képp ku ci nekk boo xam ne yaa ngi koy def professeur ngi ñaan nga tëral ko kon ñun comme amuñ doole Sénégal mooy islam bi ñoo am doole ñu ñëpp ñu booloo xeex ko mu jëral ñu nag suñu bakkan jëral ñu def suñu yitte def ci suñu lépp di ñaan yàlla it euh, yi nga xam ne ne ci réew mi xalifa bu tijaan ak bu murit yëpp ñun ñëpp ñu ànd xeex ko ndax réew mi réew réew diine la lépp ci réew mi doomu jullit lañu kon bu fee ne loo xam ne diine nanguwut ko ñu ñëpp nañ taxaw dindi ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ñu waxoon ne bu ñu gisee lu naqari nañ ko génne ak doole bu ñu ko mënul ñu génne ko ak xol ak suñu loxo bu ñu ko mënul ñu naqalu ko ci xol loolu mooy li gën a néew ci amaan kon ñu ngi naqarlu loolu ñu bëgg a ci Sénégal di ñaan gouvernement bi nag ñu dimbali ñu si ndax ñoom ñoo ñu ëpp doole ñoo ñu ëpp doole kon nañu taxaw jàppale ñu ci lii ñuy taxaw ne loolu bu mu am bu mu am bu mu am ñu daaguruñu